biodiversité bio biodiversité écologie cadre de la promotion des modes production et de consommation durable, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mampianodien, a présidé ce vendredi 29 décembre au CICES la journée scientifique de l'environnement. Euh, une son Excellence le président Macky Sall nous a confiée département de faire en sorte que notre institution pour chaque Sénégalais sur toute l'étendue du territoire. Et nous ne pensons pas pouvoir atteindre cette, cette mission si les Sénégalais eux-mêmes n'ont pas conscience de ce que c'est que le ministère. Et nous, profité de cette journée d'aujourd'hui et à travers ce stand et à travers les panels que nous avons eus pour faire comprendre à chaque Sénégalais ce que devrait être un ministère de l'Environnement, mais surtout son comportement vis-à-vis -vis de l'environnement pour que celui soit sain et sauf. Mais ceci a été rendu possible par plusieurs acteurs, au premier chef desquels mon collègue le ministre du Commerce, à qui j'adresse mes remerciements, le directeur général de la, du, de la CICES, e du CICES, e pour nous avoir accueillis et pour avoir parfaitement organisé cette journée, mais également tous mes collaborateurs qui sont investis dans la réussite de la journée, au premier chef desquels se trouve la direction de l'administration générale et de l'équipement, mais les services techniques qui également ont exposé. comme je l'ai dit, m'ont permis de découvrir ce que c'était mon ministère, mais surtout quelle était l'expertise des hommes avec qui je suis amené à conduire cette mission. merci beaucoup. Ecovillage mooy jéem a ñoŋal ni nga xam ne moom la suñu dëkku kaw yi di yëngoo ci jéem a génn ci ni ñuy dunde ci mbéy mi ci seen dëkkuwaay ci école bi ci faj mi ci lépp loo xam na ni rek. mën na ñoŋal dundinu doomu adama ci dëkk kaw yi surtout loolu mooy suñu liggéey ñun agence nationale éco éco éco village. loolu nag ñu ngi gunge doomu aadama yi nga xam ne moo nekk ci village yi yi ñuy liggéeyal ci di leen di leen tette maanaam sensibiliser leen maanaam yee ci li nga xam ne lii mooy njëriñu écologie ci biir seen doxalin seen jëfin ak seen waxin seen doxin. Euh, jàppale leen ci jumtuwaay yi nga xam ne yi moom la ñuy soxla pour loolu ba pare. jox leen xam bi nekk seen wet pour leen pour loolu yëpp mën a ñoŋ. journée placée sous le thème de promotion des modes de production et de consommation durable a aussi été l'occasion pour les panélistes venus contribuer de sensibiliser et d'informer sur les voies et moyens à adopter pour une meilleure prise en charge de l'environnement.